wa assalamu alaykum mbokk internet yi ñoo ngi leen di nuyu euh, di leen ziar di wax képp ko xamante gën nga ci chaîne bi té abonné go ñu ngi lay ñaan rek nga abonné té activer cloche bi ndax euh, vidéo bu ñu duggal euh, nga bok ci ñu ko ñi gis wéy leen di like di commenter ko partager lu ngeen ñu mëna jappalé bu baax baax moo ngo kooku mooy Mikayil Ngor fay Mikayil Ngor fay le défenseur international sénégalais de FC Barcelone actuellement comme noonu ngay gisee ci entraînement yi mi ngi bopam boppam fu la fayda ak jukkay Gaynde jay ba tax entraîneur bi di Xavi Hernandez jox ko confiance jox ko yakar euh, surtout à l'avenir actuellement Xavi boole na ci liste Barça bi nga xamantene di dem fu ci États-Unis amal fay ay match euh, amical également comme nous koy gisee ci entraînement yi mën nañoo wax que ni euh, dafa gaaw adapté wu vraiment complicité bi mo am entre mom et Pedri vraiment loolu lu baax la également Si un défenseur boo xamante ne à l'avenir dina apporter lu bari techniquement et physiquement surtout physiquement donc puissance bi am na taille bi et tout am na et ñi nga xamante ne dañu jéem a dutewu ndax dina réussir Barça et man dama leen rassurer je pense que ne Mikayil dina fa réussir parce que euh, am na style boobu et que boo ñëwaatee Barça dañ la gën a jàngal dañ la gën a xamal football même si que même bu fa réussirul donc yéene wu ma ko loolu mais loolu bu fa réussirul donc dana fa jànge dara te loolu mu fay jànge da koy apporter lu baree bari bari ci ëllëgam